maître Ciré Clédor Ly ak yeneen avocat yi bi ñu duggee ci salle bi fi nga xam ne fi la ñu commencé maanaam la ñu njëkkee mooy Juan Branco mi nga xam ne avocat Ousmane Sonko la te ñu refourleke loole la avocat yi Sonko yi commencé doon ko ñaaw la ak lu jëm ci maître Ousseynou Fall mi nga xam ne dañu koo daal di te ordre des avocats def ko loolee bokk na ci li nga xam ne avocat yi Sonko yi commencé woon nañ ko ci mbir waaye tamit wax nañ ci lu jëm ci wàllu wér maître El Hadji Diouf daan nay wax ne Ousmane Sonko amul ay preuve li nga xam ne moo ko taxoon a jóg maanaam moo yàq Mame Mbaye Niang maître Mouhamadou Moustapha Dieng di avocat Mame Mbaye Niang lii nga xam ne moom la ñu tëjee Ousmane Sonko am nay journaliste yoo xam ne tëjoon nañ leen si te Birahim Seck mi nga xam ne moo fi nekk di wax livre bi nga xam ne bind na ko dem na sa waajuru Mame Mbaye Niang waajuram wu góor maanaam di fa jéggaloo ba tey ci biir journal bi moom maître Mouhamadou Moustapha Dieng daan nay wax ne rapport bii nga xam ne moom la gars yi di wax loo xam ne lu ci am la yéen kaay gi di réew mi quotidien nee na ku ñuy wax Yaxam Kayta moom moo atte dossier bi journal bi du Source A ñu xëy fekk fa maître Ciré Clédor Ly nee na ay caaxaan na décision bi nga xam ne juge bi jël na ko maanaam dafa apaisé dalal mbir yi ngir nag Ousmane Sonko du ñàkk ay droit politique am maître El Hadji Diouf nay wax ne Ousmane Sonko war nga xam ne mooy wayu Fatou Talla Ndiaye maanaam looy waxati na lay leer maître El Hadji Diouf na looy waxati na lay leer way woowee Ousmane Sonko war na koo déglu yéen kaay gi di Sud Quotidien quotidien xëy ñu verdict de l'apaisement verdict bii nga xam ne ko maanaam ñëpp la arrangé ñu xëy fekk fa Mamadou Ibra Kane ci biir journal bi nee lii nga xam ne moo xew maanaam defetu faucon du palais yi la maanaam ñi nga xam ne ñooy jaxase ak rambaaje ak xambaate nekk ca palais ba di ay faucon maanaam ñooñee ñoo am defet ci mbir mi Birahim Seck daan wax ne mbir mi nag xaajul bay jeex dossier bi xaajul bay jeex waxi Birahim Seck la nee na mbir mi àtte nañu ko nee nañu Ousmane Sonko ñaari weeri kaso lañ ko tëj waaye na leen leer na mbir mi jeexagul yéen a kaay gi di Vox Populi xëy duñu nan ñu en tout cas li am ba des àll procureur bi nee loon woon ni na am na loo xamante ni dootu ñu ko baale te Ousmane Sonko maanaam procureur bi mooy wax journal bi nee ñi nga xam ne nag ñoo farag Ousmane Sonko bokk Pastef fa ñoom nag nee nañu li ay caaxaan la te nag bi si boppam maanaam complice la lii sax gàcce la waa kër Ousmane Sonko ñooy wax waaye nag ñoom nee nañu jamono ci dal li ñuy woote mooy ay mobilisation Mame Mbaye Niang moom na justice Mame Mbaye Niang maanaam dañu ko daal di fast track waaye nag lii doy na waar lool ma lii ay caaxaan la yéen i kaay gi di Walf Fadjri xibaar naan ñu tout ça pour ça maanaam ak li fi xew lépp fii la gars yi di mujjee li am ba des ndakaaru njaay jël joppa maanaam dëkk bi demul puusul paasul lépp na tekk koomu réew mi daal di nërmeloo yéen i kaay gi di exclusif xëy duñu xibaar naan ñu Mame Mbaye Niang def na appel waaye nag bii nga xamante ni def nañu ko ci décision bi bàyyi boo gars na see am yéen i gi di sa xëy duñu dafa mel am ci mbiri Ousmane Sonko ak Mame Mbaye Niang ndax nag gis nañu Ousmane Sonko ñaari weeri kaso la ko tëj ñaari weer yoo xam ne du ko tëdd te nag tuuma yii nga xam ne moom la Ousmane Sonko tuumal Mame Mbaye Niang am nay journaliste yoo xam ne bi ñu ko tuumalee Mame Mbaye Niang bi ñu leen attee lu toll si juróom benn weeri kaso la ñu leen tëjoon waaye juróom benn weer yoo xam ne du ñu ko tëdd ndax journal L'As mi nga xam ne Mamadou Cheikhno Talla moo nekkoon directeur publication ba ak bi di Amadou Ba ñi ay ñu bindalee Mame Mbaye Niang ci lu jëm ci 29 milliards yu Prodac juróom-benn benn ci lu jëm ci wàllum diffamation maanaam lii muy toppee Ousmane Sonko juróom-benn weeri kaso sursis la ñu tëjoon journaliste yi lan moo tax Ousmane Sonko wax lu ni mel ñu tëj ko ñaari weeri kaso yum du tëdd deux poids deux mesures ndax daf cee am journal bi di direct news maanaam moo xëy di ko laaj wala sax nee na confrontation bi nga xam ne moo am ci mbedd mi ak pression bi am ci mbedd mi moo tax maanaam mbir mi nag gars yi tempéré moo tax mbir mi gars yi tempéré loolee tamit ab laaj la journal bi ndax confrontation bi maanaam saf na sàpp pression bi nga xam ne tamit moo am ci mbedd mi loolee saf na du loolee moo tax Ousmane Sonko ñu tëj ko ñaari weer yoo xam ne du ko tëdd xam ne du ñàkk li nga xam ne mooy ay droit politique ama wala sax négociation dafa am ci suuf ngir apaiser mbir yi direct news mooy wax journal bi nag nee ñi nga xam ne ñoo ci perte maanaam ñi nga xam ne yàq nañ si seen alal ak ñi nga xam ne ñoo si am ay gaañu-gaañu ak ñi nga xam ne nag ñoo ci faato ñooñee ñooy les seuls perdants yéen kaay gi da la teem mooy ñu la boo xam ne ngir andi stabilité ci réew mi la maanaam ngir nag réew mi a am dala yéen kaay ñu mbir mi jeexagula ndax Mame Mbaye Niang dafa def li xam ne mooy appel te nag Ousmane Sonko li dafay firnde la amul benn preuve boo xam ne yore na ko rapport bi amul ñaari wéeri kaso ko tëj ak lu ci deux cent millions xam ne daf ko war jox ni ndàmpaay journal bii de la mandat nee na deux cent millions suukaru koor deux cent millions suukaru koor Mame Mbaye Niang yéen a kaay gi de duñu xibaar naan ñu Ousmane Sonko ba léegi ma ngi en sursis ndax nag naam nag nee na di libération nee na plainte bi nga xam ne Frédéric Napel def na ko Ousmane Sonko daan nañu koy instruire yéen a kaay gi di Rewmi Quotidien ñi nga ñoo bokk Pastef fa fare ca diwaanu Kolda nee nag lii lépp Macky Sall ko orchestré ngir nag empêcher Ousmane Sonko mu bokk ci élection présidentielle 2024 waaye nag ñoom nee nañu daal danañu def faire ndax lii ay caaxaan la te nag ñoom duñu nangu benn yoon ñuy sacrifier Ousmane Sonko yéen a kaay gi nag ñu xëy fekk fa waa Benno Bokk a baax maanaam dogal bi nga xamante ne nga xam ne mooy indépendance justice bi maître El Hadj Diouf nee na Ousmane Sonko ak nii nga xam ne moom la doxalee loolee nag doxali noor ku ragal la yéen a kaay gi di enquête xëy xibaar naan ñu avocat Ousmane Sonko bi di Juan Branco mi nga xam ne dañu ko refourlé woon ministre de l'intérieur di Antoine Diome andi na ci leeral ndax nee na kii nga xam ne avocat bi la dafa def appel à l'insurrection ba pare dafa attaqué Macky Sall daal di koy xas yàq ko na ko ma yéen a kaay ko ngir na xool